Ndongo Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay nga nekk secretaire général national bu CUSEMS des cadres unitaire euh, syndical des enseignants du moyen secondaire euh, déjà ngeen lancé benn plan d'action d'avertissement euh, di ko tàmbali ci mardi bile est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci plan d'action d'avertissement bi ak lan moo ko waral exactement. waaw dama leen di seen ay auditeurs. di rappeler rek ni ñun CUSEMS dañu am benn démarche boo xam ni ñëpp xamal nañu du ñu tëb tëb rek xeex moo tax at mu nekk dañuy commencer par alerter par avertir maintenant nag su loolu yëpp jariñul dara bu boobaa si la ñuy commencer sumb xeex weer wala passé li tax ñu génnee plan d'action bii loolu dañ ko constaté woon ba bindoon benn communiqué di ci attirer attention gouvernement bi di ko ñaax euh, njàppum jàngalekat yeeg ay élèves yi mu dakk mais dañu seetlu ni dafa mel na Euh, alerte boobu ñu doon def ci communiqué boobu kenn dégg ko li ñu jàpp si jàngalekat tey jii privé leen de liberté daanaka mat na fukki jàngalekat waxuma nag élèves yi dañu constater également ni bërk démb fii ci Ndar gis nañu policiers yi sànni ay lacrymogène dans l'enceinte même d'un établissement le lycée Charles de Gaulle loolu nag dañ ni lii raam nii si ñag bi la jëm te loolu kenn mënu ko nangu ñu bokk constater également que réew mi dafa mel na léegi dafa am ñaari citoyen dafa am citoyen boo xam ne lu ko neex mu def te dara du ko ci fekk am citoyen boo xam ni nag moom su reetaanee sax ñu jàpp ku tëj ko loolu nag dafa nekk loo xam ne c'est quelque chose d'inacceptable su dee dañ nekk ci état de même règle yi moom moo war a valoir pour ñëpp ñi nga xam ne ñii dañu nekk ci réew mais mënuñu ñi nga xam ne ñii xëy na peut-être dañu féete benn boor suñu defee dara ak lu mu garaaw garaaw gis nañ fi ay ay gis nañ fi ay jàngalekat yoo xam ne ñoo ngi appelé au meurtre di appelé ñu incendier ay kër kenn woowu leen kenn arrêté wu leen kenn defu leen dara nit dem bokk si benn marche wala taxaw nekk ci mbedd nit ñi dañuy sensibiliser ay xale pour ñu dem inscrire sur les listes électorales ñu jàpp ko tëj loolu dafa nekk loo xam ne mënut a wéy place su jàngalekat yi du kaso place su jàngalekat yi du kaso donc nañu bàyyi nit ñi ñu exercer seen ay liberté loolu moom mooy jàmm réew mi te loolu dafa nekk loo xam ni suñu sartu ndeyu réew moom si boppam moom moo ko maye lu sartu ndeyu réew mi maye nag loolu kenn mënul accepter que ñuy ñëw di nasaxal parce que bis bu ñu gëmoon ba ñu nasaxal ko mais ñun liberté syndicale yi nga xam ne sax moo ñu permettre ñuy yëngatu di saytu ak ak yelleef suñu kii bu boobaa ñu ko mën a def loolu nag moom moo tax en fait ñu génne plan d'action bi nga xam ni dañu wax suñu ñooñ yi ni leen talaata su neuf heures jotee nañu dakkal njàng meeg njàngale mi woote ay waxtaan ci école bu nekk comme ça li nga xam ne tey jii moo xew ci réew mi ba jaaxal ñëpp ñu waxtaan ci ba ñu xam exactement pour l'avenir lan la ñu war a def donc ci loolu pour que mu dakk mais ñu ñoo ngi xaar ñoom ñu def seen AG yooyu remettre ñu PV yi bis bu PV yi ñëw suñ ko exploité loolu moo ñu permettre ñu xam exactement fu ñu mais man naa wax d'ores et déjà que am na loo xam ni moom de toute façon kenn du ko nangu jàngalekat yi nañ leen libéré bàyyi leen d'autant plus que am na ay régions yoo xam ni sax soo fa demee nii actuellement xale ñoo ci mbedd parce que xale yi mënuñu seen yenn morom yi di jàng seen yeneen morom du ñu jàng pourquoi parce que dañ jàpp seen ay professeur su doon jàpp la boo xam ne dañ ko teg ci lu dëgër sax mais jàpp yoo xam ni en réalité kenn loo xam ni kenn mën euh, dina ànd ngeen di euh, sóobu ci grève boo xam ne peut-être ñi ñu teg loxo euh, c'était dans le cadre de leurs activités politiques maanaam ci seen engagement politique moo tax ñu tëye leen. waaw mais Ndeye damay poser waaw. <laughs> Ndeye est que ànd na aussi voilà. voilà non day ko ma damay poser question. waaw dama ni. Hmm. est-ce que parce que man jàngalekat laa aw ma droit def politique. bien sûr est-ce que dafa am un délit. Hmm. de faire de la politique dans ce pays. c'est une liberté qui est consacrée. oui donc l'exercice de cette liberté mënul valoir ñuy bundaxatal kenn. mais est-ce que kon yéen war ngeen a engagé wu pour ñu libérer ñoo xamante ni ci seen activité politique la en fait fi lu tax ma laaj la ko mooy est-ce que bu fekkonte ni ci c'est dans le cadre de l'enseignement d'accord mais su fekkente ni si c'est dans le cadre euh, de la politique est-ce que ce n'est pas paradoxal yéen ngeen bëgg a grève mais ñun ñun day kumba politique wuñu mhm. gis nga soo jëlee suñu ay statut mhm. nga dem nga xool article 4 bi da gis ni en fait si objectif yi nga xam ni moom mooy objectifu suñu kële dañu wax ni les libertés démocratiques dañ koy saytu di ko protéger loolu la ñu def defuñu leneen le combat que nous menons c'est un combat citoyen ça n'a rien à avec la politique et bala ñu ko doon xam autorités yi seen bopp dama ni liberté yi nga xam ni sartu ndeyu réew mi moom moo ko maye mais naka respecté su ko respecté pour nit ñi rek bu boobaa ñu xool ndegam ñun dañuy continuer nekk ci di xeex ak di def ay ay quoi que ce soit mais dama ni mënuñu liberté boo xam ni charte ndeyu réew mi moom moo ko maye ñu bëgg ni no non non non dafa am ñoo xam ni su leen neexee ñoom ñu ñu ñu ñu wéyal ko am nag ñeneen ñoo xam ne yii loolu ñoom kenn du leen permettre ñu këkkati loolu mënul am si réew donc loolu il faut mu leer nañ voilà euh, plan euh, d'action d'avertissement bi bu euh, euh, jeexee euh, naka ngeen fas yéene def lan ngeen fas yéene def encore pour ñu libérer enseignants yi ak élèves yi ñu waaw xam nga xam xam nga xam nga ñun lu ñuy ñaan parce que jàmm la ñu bëgg ci école bi jàmm la ñu bëgg ci réew lu ñuy ñaan c'est que autorité gouvernementale jël la pleine mesure des choses suñu ñoñ yooyu ñu libérer leen élèves yi ñu jàpp ñu libéré leen jàmm ni ñooñu loolu la ñu bëgg ah wax naa la ko sànq si sama waxtaan nee naa la am na ñu euh, ay AG yoo xam ne dañu wax suñu ñooñi ñu organiser ko ci école bu ne donc il faudrait que ñu am PV yi nga xam ne moom mooy jóge ci AG yi pour mën a xam exactement fan la ñu jëm donc mënuma jiitu euh, paaka ci mbaram comme disent les wolof donc mbir mi noonu la dem. Euh, euh, Ndongo Sarr euh, en tant qu'enseignant naka gisee climat social bi nga xam ne fi ñu toll nii doy na waar ndax wàllum politique yaa ngi kaas ci arrestation wu élèves yi ak tamit enseignants yi mais actuellement lu toll ci quatre cent détenus la ñu arrêté ci fan yi rek te gis nañ ni pareeguñu naka nga gisee climat bi nga xam ne actuellement moo am ci réew. waaw mais mais climat bi en fait climat la boo xam ne yaakaar naa ñun ñëpp parce que mënuñu nekk ci benn réew boo xam ne dañuy démocratie la et puis démocratie boo xam ne ñun ñëpp ñu nawoon ci loolu ñu jékki-jékki rek di fi gis loo xam ne lii kenn gisatu ko kenn kenn daaw ko fi gis donc loolu moo tax ñun dañuy lancer un appel aux autorités donc dama ni liberté yoo xam ne yii nit ñi dañ ko am nañu leen bàyyi ñu exercer ko suñu leen bàyyee ñu exercer ko am na fi ay affaires yoo xam ni ñëpp constaté nañ ko ñëpp constaté nañ ni très souvent manifestation yi indi ay problème ak ay affaires mooy manifestation yi ñuy interdire mais manifestation yi nga xam ni très souvent yëpp dañ koy autoriser mais benn problème du am donc quelque part li nga xam ni mooy indi jàmm ci dëkk bi ne vraiment autorités dem dans cette direction et ñun dama koy wax encore une fois yàgg naa wax loolu man dama ni autorité dañu waroon def de sorte que chaque fois boo xamee ni ñoom dañuy dem ci ay jo joŋante ñu def de sorte que ñun jàngalekat yi ñu ban ñu bañ a mën d'une manière ou d'une autre di am benn taxawaay ci processus boobu loolu nag dafay fekk ñoom seen bopp ñu may ñu jàmm école bi ñu bañ ko dugal si seen ay conflit ay affaires yu kenn xamul institution donc loolu daal suñ ko defee jàmm ni ñooy mais am na loo xam ne de toute façon fii ci réew mi kenn mënu ko nangu donc c'est pas possible donc place su kat yi ma waxaat ko du ci du ci ay police wala ay quoi que ce soit du ci ay prison nañu liberté gars yi ces enseignants là ñu ñibbi seen kër suñu xëy suba teel dem ci école yi jàng jàngal seen ay seen ay Mmh. Euh, parfois élèves yi dañuy obligé toog seen kër wala sax yéen da ngeen di wax élèves yi ñu daal di toog seen kër bu fekkente ni yenn événement yi am na comme par exemple ñu ne dañuy convoqué Sonko euh, procès am na élèves yi bari du ñu jàngi lan moo waral euh, fi toll nii ngeen adopté euh, mbir moomu. Euh, que amee ah, loolu en fait euh, moi je trouve que ay mesures de prudence la rek parce que nag dañu ñu xoddeeku bala ngay lakkle et je crois que. waxuma la élèves yi mais yow sa bopp xam nga ni yenn manifestation politique yi aujourd'hui suñ ko annoncé fii ci dëkk bi liggéeykat yi sax ñu du ñu xëy te ñooñu ay mag lañ maintenant xam nga su dee mag ci boppam moom moo xam ni kat lii su amee mën na am risque lu nekk mën na xew mën nañ ko ci faagaagal ba tax moom muy toog yaakaar naa ni kenn warul euh, jaaxle ci ni euh, parent d'élève boo xam ni bi su yëgee loolu te ay doomam këram wala ay autorité administrative yoo xam ne ñoom leer na leen ni dafa am risque yoo xam ne xale yi mën nañ ko courir mais ñu libérer leen pour que vraiment mu bañ am benn conséquence ci ñoom moi je crois que loolu rek moom moo un tout petit peu décision yooyu ñuy jël. Mhm. ñu wax tuuti ci seen élection de représentativité syndicale yi nga xam ne euh, pare na ba ngeen wéyalaat liggéey bi euh, fi ñu toll nii yan défi moo nekk ci seen kanam Ndongo Sarr. waaw mais défi yi bare na en fait et c' est yoo xam ni ay défis internes et également des défis yoo xam ni en fait externes yaakaar naa bi ci jiitu man wax naa ko nee naa daaw xeex nañu ba ci wàllu payoor am nañu ay avancées yoo xam ni noté nañ ko salué nañ ko mais li taxoon ñuy xeex muy inéquité dans le système de rémunération mooy ñàkk yamale bi nga xam ni moom moo am ci payooru liggéeykatu état bi. boobu ba léegi mu ngi fi et dafa dafa gën a aggravé sax ndax bi nga xamee ni yokk nañu salaire yu jàngalekat yi ba ñëpp yaakaar ni kat ah ñoo ngi wàññi écart bi nga xamoon moom moo amoon ak seen yeneen ñooñ yu nekk ci yeneen secteur dañu def ay augmentation généralisée salaire yi et quelquefois ci ay proportion yoo xam ni moom moo ëpp proportion yi ñuy yokkal jàngalekat yi donc problème boobu mu ngi demeurer entier et problème la boo xam ne de toute façon fekk réglé wuñ ko mais jàngalekat yi du ñu noppi di mobiliser wu autour de cette question beneen question moom mooy euh, la question de la formation nga xam ni ñi mu concerné tey fi tey dafa bare am na les PC professeurs contractuels de philosophie dont la formation est bloquée et dont nous exigeons la reprise le plus rapidement possible il est vrai que génne nañu benn décret bu créer leur corps d'accueil le diplôme qui permet d'intégrer ce corps mais fekk formé wuñu leen ba ñu am diplôme boobu ñu dul alors que si ñoom am na ci ñoo xam ni vingt trois ans yi nii ñu nekk ci système bi am des problèmes donc de carrière am na si ñoo xam ni dem nañu retraite am na si ñoo xam ni léegi ñu dem donc retraite loolu dafa nekk ay problèmes yoo xam ni c'est des problèmes urgents c'est la même chose pour les décisionnaires décisionnaires yi également mais dañuy wax depuis plus d'un an ni am na benn décret boo xam ne mi ngi nekk dans le circuit boo xam ne suñ ko signé dafay consacrer l'extinction du corps des décisionnaires mais booba léegi ñoo ngi toog di xaar alors que gis nañu fii chaque fois boo xamee ne dafa soob nguur gi mais dafa am ay décret yoo xam ne en procédure d'urgence donc lañ koy lañ koy lañ koy régler donc yenn yi dafa mel na dafa am benn manque de volonté politique boo xam ne bii dañ ko dañ ko noté et loolu en réalité dafa nekk loo xam ne dañ koy fustiger dañu bëgg si question yooyu yëpp ak yeneen yoo xam ne xëy na peut-être mënuma ko citer fii mm. mais yoo xam ne daañu ko def suñu texte liminaire conférence de presse boo xam ne dañ koy organiser demain su toutes ces questions que vraiment état bi waxtaan ak ñun les partenaire de manière à ce que très rapidement eh bien ñu tourner la page sur ces questions parce que nag dafa am préavis de grève boo xam ne bii dugal nañ ko boo xam ne y a des questions nouvelles sur lesquelles les autorités doivent se prononcer mais mënuñu toog rek bëgg ñu ci ay problèmes yoo xam ni ça remonte à on ne sait quand loolu mënuñu ci c'est pas possible il faudrait qu'on tourne la page et puis qu'on avance sur d'autres questions. voilà euh, ñenn ñi sax ñu ngi wax ni euh, yeneen secteur yi war nañu euh, imiter touti système bi nga xam ni jëm ngeen jël ngeen ko est-ce que yow ànd nga ci suggestion boobu waaw wala déet la fait que ñuy organiser ay élections de représentativité syndicale ci wàllum éducation léegi est-ce que waruñ ko yaatal ci secteur yépp. waaw man dama jàpp ni suñu nekkee ci réew. Euh, les mêmes règles moo mën a valoir moo war a valoir pour tous les actes mais ñu tànn ñenn ci réew mi ngi leen yéen kat ah déet il faut ñu teg leen règles yi am ñeneen ñoo xam ne nag ñoom dañ leen bàyyi rek noonu ñu leen seetaan te raison yi nga xam ne moom moo taxoon secteur éducation et formation ñu ni dañuy organiser ay élections représentatives pour rationaliser la table mais raison yooyu am na yeneen secteur yoo xam ni trouvé nañ fa loolu maintenant je crois que secteur yooyu pour rationaliser là également Euh, ce serait une bonne chose pour que effectivement ñu dem dans le sens d'organiser des élections de représentativité parce que loolu dafay leeral je bi ñu xam exactement quels sont les syndicats yi nga xam ni ñoom ñooy représenter les masses travailleuses bu boobaa en fait ñooñu mën a wax ak donc nguur gi ñun dañu yaakaar ni loolu en fait suñ ko defoon maintenant am na ay secteurs yoo xam ni le problème ne se pose pas parce que foofu barewul ay organisation syndicale peut-être que foofu moom soxlawul ñu koy organiser ay élection mais fépp foo xam ni daal vraiment euh, syndicat yi bare na am na benn sëmbaxlu boo xam ni bii xëy na peut-être mën na nekk source de confusion moi je crois que ñu organiser ay élection clarifiées ce serait une excellente chose. voilà Ndongo Sarr maa ngi lay remercier bu baax a baax. voilà merci Ndeye Comba. voilà may fàttali ni yow yaay secrétaire général national bu CUSEMS cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire ñu lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité. eh bien merci merci Ndeye on est ensemble. si merci Ndeye Comba on est ensemble.